Mafal Fall di promoteur waaye itam di responsable politique di jiite ab mouvement ci réew bu Sénégal waaye itam di jàppale président Macky Sall rawatina ci li nga xam ne moo jëm ci plan Sénégal émergent jamono ji mu gis ne Touba rafet na lool ñoo xam ne ni ay farandoo njiitu réew mi la ñu koy jàppale ci lu jëm ci wàllu social bi waaye itam ñu koy jàppale ci lu jëm ci wàllum askan wi ba tax na mu daal di dugal loxoom ci dëkk bu sell bi ci Touba jaaree ko ci Serigne Saliou Ndiaye mi nga xam ne moom moo di président des fédération des handicapés de Touba. yoo xam ne yaakaar na jamono weer bi bi mu démarré ba léegi ñi ngi def yu mel noonu mais suuruleel xarit bi daf ci gën a yokk nag ñu ànd ko ak promoteur euh, Mafal Fall nekk également responsable nekk ku jiite mouvement pour ñëw soutenir président Macky Sall surtout nag ci biir Touba euh, ni nga xam ne noonu lañu ko defee Touba nag aussi ci kilifa diine yi nga xam danañ jël ambulance yoo xam ne tolloon na ci 2 millions 500 ñu war ko distribuer lenn ci ay kilifa diine ci biir dëkk bi lenn ci ay daara alxuraan lenn ci ay responsable yoo xam ne tamit aussi nekk nañ ci biir dëkk bi waaw ma falfal moo ñëw na fi ci mois de ramadan bi bi mu démarré ànd nañ ko ak moom muy journée solidarité boo xam ne ñu ngi ko doon def ak moom ànd ko ak moom pour jàppale surtout nag néew doole yi euh, léegi nag ñu continuer aussi pour amal loolu ci jour lay leen xarit pour jàppale kilifa diine ak sëriñu daara yi ak lenn ci ay responsable yoo xam nekk nañ ci biir dëkk bi te aajo woon ndimbal ji nag aussi mais nag kilifa diine yi nag ñoo ci ñoo ci rawati mm-hmm. ndimbal nag ñi ngi ko tàmbalee ci ab ndogu boo xam ne ña ko defee ci Touba Guédé woo askan wi ak néegi doole yi ngir ñu daal di ñëw daal di amal ndogu bu am solo waaw ci li mu ma wax pare na pour jàppale président Macky Sall surtout nag ci plan Sénégal émergent ndax ku xam Fall Fall xam ko ci ay activités xam ni également nit ku baax la koo xam ne dafay jël alalam di ko def ci askan bi surtout nag population bi ñi nga xam dañu néew doole euh, foofu lay def alalam lu ëpp léegi nag pare na pour jàppale président Macky Sall fépp nag ci Sénégal du Touba rek. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi yu njaay mi nga xam ne nii moom moo ko teewal fii ci Touba ma ngay fësal ni ku mel ne ma faal faal président Macky Sall soxla na ko fii ci dëkk bu sell bi tubaa Touba ndax ñàkkum responsable APR yoo xam ne nii gis nañu leen fii ñu jàppale askan wi ngir ñu mën a gën a gis liggéeyu président Macky saal xam nga loolu moom ñu fi lañ ko fekk Touba moom jàpp naa ne tamit comme li kilifa wax barki Demba Ndiaye Moustapha Cissé dégg nañ ko mu def wax na ci lenn ci ay responsable APR yoo xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi seen taxawaay ci population bi euh, li leen ci war ñoom dañ ko def bu ñu ko defoon jàpp naa ni Macky problème yooyu ñuy wax du ko am biir Touba mais nag lu ko yàqal en général responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi parce que benn bu mel ni Moustapha Sylla bu ko amoon lu bëree bëri yaakaar naa li mu bëgg dana ko am mais ñu mel ni moom nag moo fi amul parce que du ñu wax dëgg xam nga kii kilifa la ci réew mi la dëkk responsable la aussi te it euh, loxoom set na nit ñi xam nañ ko kilifa la d'abord Euh, fu mu dem bu taalalee loxo nit ñi nit ñi danañ ko wisu pour jàppale ko tey Touba dañu soxla ñu mel noonu ndax ñi fi nekk am na ci ñoo xam seen loxo setul loolu moo fi bari nit ñi amatuñ ci ñoom confiance amatuñ ci ñoom yaakaar loolu mooy problème bi aussi. jàppale askan wi jaarale ko ci ay action sociale jaarale ko ci ay responsable yoo xam ne nii dañoo jege président Macky Sall lile di loo xam ne nii mën naa tax xolo askan wi daal di gën a jublu président Macky Sall man koo may deuxième mandat lile bokk ci tax a ki nga xam ne moom moo di Mafal Fall te Saliou yaay di dëggal lu ni mel. xarit la euh, sama lépp la kilifa diine nag gu euh, ma wóolu am fu ma teg moom ma ko boole ma ak moom te lu mel nii. nit koo xam ne dafay def lu baax nit koo xam ne dafay fonk askanam nit koo xam ne dafay fonk réewam euh, muy réewum Sénégal nga xam ni kenn mënu koo xar ñaar ñun ñoo ko bokk mu bokk ci ñi nga xam ne day dañuy développé réew mi ma faal faal ci ñooñu la bokk te Touba dañuy soxla période bi ko mel ni moom ndax amu fi du ci responsable politique yi fi nekk du waa kër Macky Sall yi fi nekk kon Touba soxla nañ ko mel ni ma faal fan mu jël alalam pour dugal ci biir dëkk bi. ginnaaw bi nag bi ñu laajee ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Ndiaye lan moo tax ma faal faal teewul moom ma ngay fësal ne jamono ji bu ñu génnee koor gi dana ñëw fii ci biir Touba daal def ay activité ci lu jëm ci wàllum politique am waaye tam gën a jaxasoo ak askan wi saafook ñoom waaye itam fësal li nga xam ne moom moo jëm ci objectif am. Euh, dana fi ñëw léegi balaa yàgg parce que mébatoon na nag pour ñëw ci laylatu xadr gi mais activités yi bari na programme yi aussi gis nga ko que comme bis bi bisu diine la aussi tamit dañ ci jàng alxuraan yu mel noonu bëgguñ ci def benn activité daal vraiment ci yu mel noonu moo taxit ñu jox ko ngànt boobu ne ko na toog après korite incha allah rabbi mu ñëw siyaare si Tuuba rencontre kilifa diine yi waxtaan ak ñoom